otoom ñëw na Moussa ànd ak waa MG production le mars stade Ngalandou Diouf de Rufisque grand combat bi war a dox ci diggante sapeur bu Bargny ak xayta bu jëf soog a nekk drapeau Mamadou Lamine Thiam combat ba ca topp nag war dox ci diggante Boy Niang 3 ak Siteu bu As drapeau Mame Mariama Gueye responsable politique guy gi numéro 2 war fa jàkkaarloo ak Eumeu Sène numéro 2 drapeau Diop artiste Bargny ak yeneen i sept combat foofee ci stade Ngalandou Diouf le ànd ci ak Moussa Blanc loge 5000 francs. mbokk yi suivre Lutte TV point com ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare comme ni ñu leen ko waxee rek seetaan ngeen brise de mer numéro 2 adversaire am moo ngi nii Bébé Diouldé école de Cheikh Mbaba ñu ñëw fas yéene waxtaan ak yow ci combat bi dimanche la soreetul yaa ngi ci géej gi di relax dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu waxtaan sa diggante ak sa adversaire bëgg naa la bu baax mbër di la onsi billah bisimillah inna wali yàlla jërëjëf sëriñ Touba njaarama Cheikh Ibra ginnaaw buñ sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur Lamine ñu ngi lay nuyu di nuyu uh, mu tudd sax waa lit lit TV yëpp di nuyu sama entraîneur Baye ba Sung di ko jégalu bu baax a baax ci bi di nuyu waa Kodul Cheikh Mbaw bi yëpp di nuyu waa Grand Dakar di nuyu waa Bawol di nuyu monde entier di ñaan la xew Russie ak Grèce yàlla na ko yàlla jeexal uh, ak Ukraine. damaa xamante sax. projet damaa sonn xamatuma. waxatal dëgg fi ma waxoon sax. kireen kireen kireen. noonu kireen la wala lan. foo wax baax na. fana fana wopp fana fi xeex. foo wax baax ñaari dëkk yi. waaaa léegi euh, de aussi di ñaanal suñu mbokku catholique nga xam ne dañoo ne si kerem bi yàlla suñu borom may leen ñu wóor ci jaam wóoru ci jaam mois ramadan bi nu jëm yàlla suñu borom may ñu dugg ceeg jaam génn ceeg jaam ci barke alxuraan maa ngi nuyu waa adduna yëpp. Mm-hmm. macha allah loolu am na solo comme ni ma ko waxee rek wala ñu ñëw sa adversaire nga fàttali ñaata combat nga bëree ko. de bëri na 16 combats. 4 défaites benn match nul li des yàlla suturaal nañu di ñaan yàlla suñu borom combat bi ñu yàlla may ñu doon. ci 16 combats yooyu noonu ñaata kaw nga ci am. naa 3 kaw. ak bii ma jëm mu ñoom ñu quatrième. sa adversaire ci combat la jógee mu digganteem ak Tmax nga combat bi na mu seetaan naa ko bu baax Tmax da koo kaw mu dóor coup perdu. képp teem ak si kaw loolu la gisee seetaan naa ko bu baax. xam nga ngay bëri. bu baax a baax ndaama la. ndaam bu sap saf. ndaama songu caxabal lay def loolu mooy loolu paa bi liggéey nañ ci moom bu baax a baax. ndaama la mais ndaama bu sap saf la de. waaw ndaanaan la wax dëgg yàlla ndaanaan la ndax def na ay ay ay preuve ba tax ñu mën koo jël. Ah. te aussi dañoon na ci ay ay situation moo tax jël te brise de mer mais adversaire ah. li tubaab na reculer bien pour mieux ci loolu lañ toll. moo tax ñu jël ko. ngeen tubaab naan. reculer bien pour mieux jouer. waaw loolu la ñu toll. sa adversaire bi nga ko jàngatee seetaan ay combat wala jotoo seetaan ay combat na nga def nii. waaw maa seetaan bu baax seetaan bu baax a baax. ñaata combat nga seetaan. seetaan naa yu bëri gis naa ci ay kale yu mu ay différents kale yoo xam ne def na ko. Mhm. mais li nga xamante ne nii moo gën a l'essentiel ci ay ay ay kale moom. songu jàpp takk nga yëngu mu caxabal loolu mooy bëri gis naa ko bu mais gis nañ tamit bi combat passé mu wane beneen façon xeex xeex bu. dé déggoo li ma la kaw mu dóor coup perdu loolu daane waa ji de mais du ko ay ay dóor mu daanu déedéet. soo ko mu dóor coup perdu. man dinaa ko kaw muy taxaw le chasseur c'est du ma jam muy taxaw lu ma jam ko wàcc. Ah. waaw yaakaar nga ne boo ko jamee mu ma ko gis naa ko nag ci bi laa ko fekk caaro gi laa ko fekk ci tefes bi saa mi ndaama la mais ndaam macha allah macha allah. ñoom ci tefes bi la ñu dëkk bu néew tefes fan lay nekk. foo ma fekk yu tefes bi ah voilà noonu la demee. mais da doon entraîné entraîné ba noppalu waaw dafa entraîné man damaa ñëw entraînement nga fekk ma la demee. Hmm. nan nga waajalee combat bi pare nañ ko bu baax a baax a baax a baax ak sunu ay mbokk ak sunu coach. bilaay fii balaa kenn ñëw def loo ma fi ay mouvement yoo xamante ne nii barki yàlla bokk si entraînement yi. ñëw noppalu 16 h ñu noppale ko xaar gars yi ñëwaat ñu continuer àndaat ak ñoom entraînement hmm. te loolu ak mbaaxam dong moo tax. mu ñu koy def dañ koy sant bu baax baax a baax suñu bàyyi wate sung ci moom la ñu dooree làmb ci moom la ñuy bàyyee làmb tey su bawoon làmb wallaay man ma bàyyi làmb ndax euh, xamatuma feneen fu ma jëm ndax si moom laa jàngal lépp lépp lu ma moo ko ba koy tari moom moo ma ko jàngal soxlawu ma xam xam keneen keneen soxlawu ma xam-xam li mu am doy na lu mu amul bëgguma. ñaata séance nga doon def laa par jour. waaw maa doon def deux ou trois. waaw dama doon def deux dama doon def trois waaw noon la demee nag saa yu ma yeew lu yaram mu yëg rek ma nekk ci man damay tëdd sama néeg sax ba yàgg ma yeew entraîné ci biir néeg bi bilaay sa combat bi ak bi nga jógee nii sa diggante ak Youssou Ndour yaakaar naa nga gëjoon bëre waaw sama combat ak Youssou Ndour laa gëj a bëre am ci lu ma metti trop ba dem laa ko waa ànd ak sama mbokku liggéey ah, lu gën a lu ma metti ba ma bëggoon a bàyyi laam barke alxuraan billaahi ba nar a laam sama yaay laa woo téléphone mu ne mbërëb continuel laam ba am na kenn ku ko bëgg ngir yow kooku jaar na nga rey sa bopp te boo moom nee na sa lu gën a pire loolu mu ngi lay xaar. kooku dafa juum de. juumul dafa juum ah. Brice daa am loo daa mën a am lu pire kii yàlla suñu borom rek moo ñëwoon fii mais xam na ne laamu boobu jeexoon na. Hmm. billaay damay ñaan yàlla suturaal ma si combat yi ma jëm rek may ma ndam li ma war a def yëpp def naa ko ak sama may mbokk barke alxuraan. lan nga moytu ci Brice. tous ko si wóor na Serigne Touba amul lu may moytu ci moom amul lu may xalaat si moom amul lu ragal si moom. amul looy ci biir. cokkeer man dëreer morom ma ci biir mboob toxu bu xal xaju ci gémmañ ñu tef. moom du cokkeer de moom jën nooru ci géej gi boo xam kon. maa du la naqal. mos koy sànni jàpp ko nga naa ma lan. na ko nar a nax ba daan ko. <laughs> xool nu ma ko def ba daan ko rek naa ko daan rek man daan ko rek laa hmm. <laughs> ba booba. ba ba booba ba booba ak yàlla yi yi tànk taxabal jëlee wu ko fi de bu lonkee taxabal ma lonk si ko yenu ba sa kaw dóor ci suuf kon soo amul chance da nga koy yenu top cinq laa koy dugal nga naan la xam nga lu naan naar bu ndawam lu mu def ci mag ba la ko gisee sama turandoo yàggul dara la def top cinq fii kenn ñëpp di ko coow loolu laay répété waat incha allah mhm, waaw côté ambiance lan ngay répété parce que ku la xool xam tamit xam na ci ambiance fekk ci mu rëy lan ngay répété waaw ànd nañ ko waa écrit bi yëpp ay ñoom jaaxum booy buy mut séeréer euh, ak suñu temple Masor Soura Malick ay ñoom booy moo Kanka ak boo yëpp ànd nañ ci répété nañ loo xamante ne ni bu ñu wàccee isaat dinañ xam ne julli ñëw na. dañ koy yëngal ba mu yëngu ñu jàpp waay gi daan ko ñibbi. Ah. wallaay mobilisation fan nga ci toll. supporters yi pare nañ boo jaaree marché rek xam ne pare nañ man li ma ngëng moo bëri Bawol Grand Dakar man mbiru gox laa wallaahi su ma jógee ñëpp ay jóg Bawol dañuy tak Grand Dakar takk taxañu nu isaat wallaay Mm-hmm. aca kon lan ngay mujj wax say mbokk ak waa boobu woo waa Grand Dakar gi yëpp bàyyiwuma kenn mm, suñu yaay Ndeye Sali Diop Mansour Diop maa ngi koy woo si bu baax docteur Sène maa ngi koy woo si combat bu baax a baax mu ñëw jàpp si ak bépp autorité boo xam ne nekk na Grand Dakar ñu ngi lay tàllal loxo nga ñëw jàppale Bébé Diouldé di woo Pa Moussa ak waa deuxième monde sama booy di woo suñu yaay Marème Ning di woo waa Grand Dakar bi yëpp bawol bàyyiwuma kenn di woo suñu tonto Edouard Sène Ndondol ak Mansour Diop Mansour Camara Yaraax grand Abdou ñu ngi lay woo si combat bu baax a baax di woo suñu tonton Edouard Sène di ko woo Maître Sène ndondol ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax monsieur Mor Ngom mi nga xam ne bu lu mu tudde drapeau ñu ngi koy woo si lamb bi bu baax ndax doomu bawal te ñun ay lañ ñu ngi koy woo si lamb bi mu jàpp si bu baax a baax Ilimane John France Ilimane John Castor Ousseynou ak Assane sama seex yi maa leen di woo bu baax a baax di woo Birane sama seex di woo Ilimane Ilimane Castor di woo tam aussi euh, waa Marsetilène bi yëpp ku ci mel waa Mbeyane production maa leen di woo bu baax baax si combat bi Mortala Ndaw sama doom day seex maa ngi koy woo Birane Ndiango maa ngi koy woo bu baax a baax a baax di woo sama boo yëpp école de seex mbaawa bi nag oo seen fay ndax wax dëgg yàlla ñu ngi may taxaw guddeeg bëccëg di ma jàppale li ma am ak li ma amut yëpp xooluñu ko wallaahi lancim maa fi mujjee ñëw mais xoolal luñ ma dara barke alxuraan te guñu ma bët aussi dañ may jàppale chaque jour que jëfee ñu sama ginnaaw sama entraîneur yi ma jot a jaar ku ci mel ni ah, père Habib Gueye di ko ñaan yàlla suñu borom ko bu di mag si Colobane maa ngi koy sant bu baax baax am na lu mu def si man xaj na nekkatuma fa nag am na lu mu def man euh, nu tuddi sax Baye Gueye mi nga xam ne ci laa nekk entraîné ne ak am Doudou maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax hmm. waaw Lamine ñu ngi lay sant bu baax a baax di jéglu nag ci dérangement bi tam aussi waaw ñu ngi lay jéglu bu baax ñoo far ok thank mbokki Bargny waa Tëngéej seen doom ñëw na Moussa Gueye ànd ak waa MG production le 20 mars stade Ngalandou Diouf de Rufisque grand combat bi war a dox ci diggante sapeur bu Bargny ak xayta bu jëf soog a nekk drapeau Mamadou Lamine Thiam a responsable politique guy gi numéro 2 war fa jàkkaarloo ak Eumeu numéro 2 drapeau Diop artiste Bargny ak yeneen i sept combat foofee ci stade Ngalandou Diouf le 20 ànd ci ak Moussa Gueye Tribune supporter 2000 francs, loge 5000 francs.